mu mel ni tey ñoo ngi fii ci Mbàkke xam ngeen ne bëkk démb ba léegi ñoo ngi fii ci Mbàkke ci kër Serigne Cheikh Fall jëmb waaye tak ñu toog ak euh, Serigne Serif Hassan Ndaw ibnu Baye Cheikh Ndaw xam naa ñu jox ko kàddu gi rek euh, yenn kàddu yoo xamante ne dina jëm ci bis bi kon xam naa dañuy gàttal jox ko kàddu yi rek bisimilah sëñ bi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. yéen sama bokki taalibe yi maa ngi leen di lu bari di leen siyaare itam ci ndigalal sëñ Moustapha Ndaw mi nga xam ne moo fi nekkal sëñ Cheikh Ndaw suñ toogaay bii moom lañ fi toogal nekkal ko fi dajale njaboot gi yëpp ngir nañ ko daan defee sunuy maam ak sunuy baay daan topp ku fi nekkal Cheikh Ibrahima ñu topp ko noonu lañ fa yéenee incha allahu rabbi di ñaanal nag suñ Cheikh jëmb mi nga xam ne dafay nekkoon ñu ànd ak moom doon liggéey sama boroom yokk leeram yokk barkeem boole kook maamam ju tedd ja maam Cheikh Ibrahima Fall te suñ borom taas ñu ci barkeem di ñaanal itam sëñ Amdi Moustapha mi nga xam ne moo fi ne nekkal fi sëñ du Mbend sama boroom may ko wér ak kattan ak doole ju mu mën a liggéeyale maam maam Cheikh Ibrahima Fall te ànd koog moom waaw te siyaar ñëpp di balu ñëpp di wax ne nag góorgóorlu bu baax ak taalibe bi rek moo am solo dara amu fi solo lu ma di ak taalibe bi te yemal xëy am gën jëm dara du fa doy dara du doy nag.